ci ndoddu euh, Ousmane Sonko Birahim euh, rapidement euh, ban gis-gis nga am ci ci réaction bu bu avocat yu Ousmane Sonko. waaw non ils ont ce sont ces te la ñu wax tamit dafa leer mooy d'abord li ñu doon njortu mooy verdict wala mbirum mbirum procès bi ci boppam. politique da cee lax da cee rax mooy li ñu bëgg mooy fexe ba kii bu mu doon. bu mu bokk ci élection. Mhm. parce que verdict boo xoolee. mooy euh, violé woo waaye yàq nga ndaw si verdict bi boo xoolee mooy violé woo waaye faw ñu teg la daan ci kaw li ko code pénal waxee mooy diggante ñaari at jàpp juróomi at ñu seet ci gën a ndaw ci code pénal bi mooy deux ans ne la ci wàlluk amende trois cent mille jàpp deux millions ñu ne nañu seet ci diggante bi ñu jox la six cent mille ba pare ka ñu jàpp ni mooy complice incitation à la débauche lañ ko wax lañ ko àttee tamit muy euh, Ndeye Khady Ndiaye mais li ëpp importance mooy verdict bi dafa tombe ci benn moment boo xamee ni dañu confirmer que dafa am politisation de de ce dossier depuis le début ndax euh, boo xoolee juge bi neewul nañ ko jël parce que d'habitude bu ñu la daanee surtout nga fekkee woo muy contumace dañ naan kii nañ ko jëli mais comme dañoo requalifier euh, fait yi ñu ko jëkkoon a toppee wala yi ñu ko toppee. def ci yeneen muy euh, délit de corruption de de jeunesse. Mhm. Euh, ñu ne léegi jarul ñu koy jëli. Mhm. juge bi moom moo décidé noonu ne ni jarul ñu koy jëli. maanaam nag léegi moom bu bëggee def nag appel comme ci chambre criminelle la. Mhm. faw mu dem. li ñu naan constitué wu prisonnier ne ne ñuy def appel. wala ay avocats ñoom ñoo xam yoon ba ñuy jaar. pour appel boobu mën a am pour ñu dindi annuler li nga xam ne moom mooy verdict boobu mhm. te bu boobaa day fekk mu amaat lu ñu woowee tëggaat procès wala mhm. xoolaat procès bi delloo soit ci ay yenn ci ay ay cas mhm. te sànq maître euh, Pape Sène mu ngi koy wax beneen wàll bi mën na ne ni man d'accord ma man viol laa wax te damay maintenir li ma li ma li ma li ma accusé te comme dama koy maintenir faw nañu kiyaat ma def appel boo xamee ni faw ñu dëggaat mbir yi faw ñu defaraat ko parce que man d'accord ma ci loolu procureur ne waa léegi kii sax man euh, juge parce que yow yaa jël man dama la ne lii laa bëgg ñu def ko waaye juge moom jël kiw boppam procureur ne ko man d'accord ma tamit ci ni nga àtte mais liy jeexital bi mooy au plan politique mooy li ma doon wax sànq mooy déjà tout le monde aujourd'hui se se dit que kii dañ ko doon taqal tuumal juste pour wàllu politique ñu bañ koo bàyyi mu romb mooy Ousmane ko te ñaara ci mën a nekk qu'il sorte grandi de cette affaire politiquement gën see am doole ou mu am beneen euh, euh, li naan euh, le le le cas contraire te li ñu gis nii mooy ni politiquement ñenn ñi dañ ko gën a jox doole parce que dañ jàpp ni tuumaal nañ ko viol te loolu ñu koy wax ñii yëpp ndekete amul parce que prouver wu ñu ko ndax viol moom la ngay mën a prouver la ci kanamu chambre criminelle mm-hmm. donc dossier éminemment politique mm-hmm. verdict politique aussi. d'accord euh, Mansour Birahim mi ngi koy wax sànq euh, lu ci bari juddu ci ci li nga xam ne moo di procès bi euh, ci ci li ko indi ku nekk xam na ko Ousmane Sonko moom moo def deful violé na ba tey jii nii ñu agsi fii ñu doog a wax que ni viol dañ ko écarté ñëw andi corruption de la jeunesse. mais dafay jox dëgg ñu waxoon ni viol amu fa. dafay jox dëgg ñu waxoon ni viole amu fa fi ñu sukkandiku bu jël àtte boobu itam est-ce que du jox dëgg ñu waxoon ni complot la parce que comme viol bi nga xam moo sababoon moo ubbi dossier bi yépp di ci am lépp am ci toujours euh, ñii dañuy wax ni viol mus am ñii ni viol la toujours ñu jàpp ci viol boobu viol boobu finalement comme ni ñu ko mettre Pape seen jàngale Sénégal dafa tëggaat su kës ni ko ci convention bu mu signé. ni xale bi bu amee lii bu am at bii am na foo yegg ak moom ci xam-xamu sëy wala ci yàqute yoon mun na la ci topp. mais gis nga li ci xew lépp càlla ba ñu jël dossier bi jébal ko chambre criminelle euh, ba li ci am lépp am ci kon bu fekkee viol amu ci. Euh, dafay xaw a doy waar dafay dafay ni communiqué bi waaye waxee sànq def ci jafee ñu génn ci dossier bi politique. <laughs> xam nga bëkk démb Fatima maa ngi lay maa ngi lay expliquer ci rajo bi di la nettali euh, benn suuraat muy suuraat Yuusuf pratiquement même même même ci aaya bu mel ni mhm. ni gis nañu réalité mhm. mais n'empêche mhm. nañ ko nañ ko tëj benn moment gis nañu réalité waaye teewul nañ ko tëj benn moment sëñ alxuraan daf ñuy fàttali toujours di contextualiser li nga xam moom la ñuy dund. waxuñu Ousmane defulan ah, parce que toujours Birahim daf koy wax. muy lu am solo xëy na moom moo fa dem. mais xëy na moo xamante ku jigéen ki. mais comme li Jésus waxoon aussi. Isa ibnu Mariam. kan moo mën a waat ci ni moom mucc na ci bàkkaar. moo tax yi dossiers yi dafa dafa doy waa ci fi politique Sénégal toll comme ni ko avocat Ousmane Sonko waxee mooy leer na bu fekkee yoon la ñuy wax comme décision bi yoon jël dañ xam ni euh, du mën a bokk ci élection présidentielle yi léegi après lañ la mën a indi foofu nag la responsabilité nguur di taxawee te loolu la Birahim doon wax démb ni état bi il faut mu gérer dossier bi fi nekk nii euh, béy wees na mbuus est-ce que Ousmane Sonko dana dem comme prisonnier pour ñu defaat beneen appel wala ñu ubbiwaat dossier bi wala ndax dañu koy jëli lu mu ci mën di doon euh, mun na bañ a sedd mhm. te souhaité wuñ ko pour senegal mooy li tax nag foog ñu xool ci yàqu-yàqu politique yi li mu mën a indi mhm. yàqu-yàqu politique yi nga xam ne dès le début tey ci cëppaandaw ji bi verdict bi waddee mhm. ku la waxoon ni viol amul doo ko gëm képp ku doon jàpp dossier bi di ci ngalti ngalti bu ñu la nee dossier amul boo amee xel te xalaat war nga reculer bu baax war nga xam ni am na politique am na lu ñu ci mën a gancé am na lu ñu ci monte xoolal ñaata nit ñoo ci nekk ñoo ci nekk ay victimes waxuma la ñu faatu mais ñi ci ñàkk seen ay carrière euh, am na ko posé question bu am solo sànq ci Adji Sarr après defe naa wàll yow la yow la kii euh, Fatima après Adji Sarr lan la yoon mën a waajalal Ousmane Sonko wala waa Sénégal pourquoi pas ñu topp ko Adji Sarr parce que daf ni dañ ko violé ci pandaw ji àttekat bi ni gisuma viol donc donc loolu itam mënut a mënut a paase noonu noonu noonu rek. parce que mugum jëm dañ ma dañ ma dañ ma sàkku ci lu ma sañu bañ ak menace de mort ak nangam mais ak li ci xew lépp mënuñu ko bàyyi noonu après mu paase noonu rek lan la ci yow mën a waaj. parce que nag du du du n'importe quel dossier viol. dossier Adji Sarr dafa particulier donc loolu mënuñu su ko bàyyi noonu mu sedd rek alors que cëppaa ndaw ji. attekat bi nee na aji waxoo dëgg ci viol bi. pour mu clair loolu mooy li am kenn violé wu léegi ñaata goo ñu nekk victime ci yu mel noonu moo tax yu mel nii dañ ko war di éviter dañ ko war di moytu euh, ci yàq dundu nit yàqu euh, carrière nit ci wàllu politique c'était bien préparé xëy na jubluwaay bi ci wàllu politique atteindre nañ seen objectif Ousmane Sonko aussi juum na léegi li ci des conséquences yi mooy ñoom ñu gérer dossier bi euh, luñ dul luñ dul cautionné moom mooy ak lu mën di am kiy toppee wax na dëgg wala waxul dëgg ki muy topp am na dëgg wala amul dëgg dem kaso wala ñàkk dem kaso ñoom ñi ñoom ñeent ñooñu xaw ma ñett yi tribunal bi taxawal tey kenn moo mu ci senegal pour war a yàq Sénégal lépp justice moo koy lijjantiwaat bu fekkente ni bi àtte bi baaxul ñiy conseiller Ousmane sonk xam nañu fi ñuy jaar ba ñu mën a jubbantiwaat àtte bi bu fekkee dañuy topp Adji Sarr ci kàccam yi itam xam nañu fi ñuy jaar ñu topp ko mais l'essentiel mooy kenn amu ci sañ-sañu yàq Sénégal sañu ñu koo taal sañu ñoo yàq alalu nit ñi sañu ñoo tee nit ñi xëy dem liggéey yi parce que li benn dossier la boo xam ni euh, dafa fekkoon Sénégal nekk fi après Sénégal dafay continuer nekk fi donc war nañu xool vraiment yu mel ni di ko éviter ci wàllu politique parce que bii dafa bind xët woo xam ne ci wàllu histoire amul benn xët boo xam ne mës nga ko bind jàpp nañ fi nit ci wàllu détournement dugal nañ fi nit kaso yàq entreprise am yàqal ko ay employé am. fu mel ni lu mel ni Jean Lefebvre nga xam ne 5000 personnes ñoo ko doon liggéey. mais dossier bu mel nii merci bu mel nii mu ngi soog am ci wàllu histoire politique bu Sénégal. te ba ci cëppaandaw ji mooy baat bu baat ba ba ba sos wax ji muy viol bi. àttekat bi nee na du dëgg. donc lu lu lu mat a lu mat a bàyyi xel la c'est-à-dire que baat bu njëkk boobu moo xaw a moo xaw a doy waar gis nga li mu indi tey ci ay conséquences malheureusement. impact bi ci kan. plan électoral. impact bi li mu nar a andi. non li non li indi bu fekkee kii conseil Ousmane Sonko. il a été très clair nee bu fekkee sax na du mën a nekk candidat. Hmm. effectivement parce que mënoo nekk ci kaso bi di nekk candidat. Hmm. yoonu Sénégal waa yëlalul ku nekk ci kaso di nekk candidat. Hmm. est-ce que ñu féete ak Sonko daañu ko nangu parce que toujours nee nañu Sonko dafay nekk candidat. Macky Sall moo dul nekk candidat Macky Sall moom annoncé gul candidature am donte am na ay benn benn yu koy annoncé mais ci côté popularité en tout cas gëmaguma ne dina impacter popularité bu Ousmane Sonko bu ko fekkente ni bi yokkalu gu ko parce que sénégalais euh, bu dossier leeree ci boppam dafa mën a jàppale koo xam ne dañu jàpp ni victime la mais Ousmane Sonko mën na bokkaat ci cinq wala six élections présidentielles ci kanamam ci dundam amul lu muy amagul lu muy lu muy am bay ñàkk. <laughs> te bu fekkee élection yi ñu dëgmal yu 2024 yi bu jàppee xaati góor ñi def ciy bokk ça <laughs> pose problème <laughs> parce que ak condamnation bi du ci mën a bokk. déjà ñu ngi doon am doute ci est na que a bokk. ak ci bi ñu ko daanee ci dossier bi ak Mame Mbaye Niang. ok euh, am na ci kanamam nguur gu ay ci wàllu politique ak wàllu yoon. résister na def na kéemtulaay kantinam mais décision bi bàyyeekoo ci tribunal bi kenn kenn mënu kenn amu ci pexe est-ce que nag daañu ko traverser foofu la question bi nekk en tout cas loolu la ñuy loolu la ñuy ñaan ñu traverser ko ba egg ci élection moom la ñu bëgg en tout cas mais li wétuba mooy mun na ko mun na impacté wu ci moom ba du mën a nekk candidat mais mënul impacté wu ci moom ci popularité am moytul càlla euh, ci wàllu politique bari na ku nekkul candidat mais mooy fal di folli Ibrahima xam na li may wax dafa am ñoo ay grand électeur lañ leen di woowee ñu ku leen neex ñooy falu ku leen neex ñooy follee ko te Ousmane Sonko mun nañ ko boolee ci ñooñu bu fekkee ful bi koy topp xam nañu ni ay électeurs lañ. donc génn ko actuellement ci ci ci ci ci élection yombul. même moom bu fekkente ni bi demul. mais nag message bi mooy Ousmane Sonko moom personne am bu fekkee demul demul ci élection aussi il faut mu relativiser ko. Mm. comme li ma wax ni ko li ma président Macky Sall ko. bul ut ñuy ànd ak yow ba def ñu tàccu la da nga am ay conseil yoo xam ne ngay def ñu la déedéet Ousmane Sonko noonu la ko soxlaa parce que amul kenn koo xam ne tey war nga taal réew mi war nañ ko wax ni ko bu dul élection 2024 mais bàyyi di 2029 bu fekkee mënu bokk ci 2027 boo mënu bokk ci gérer ko nga bokk ci yeneen parce que fii gis nañ fi dossier bu nekk et après euh, ki ñu doon topp dafay ñëw bokkaat ci élection donc dafay am décision dafay taxawaayam dafay déterminer wu bu baax ci ëllëg ki nekk président bu ñu eggee ci élection présidentielle yu 2024 yi. D'accord, merci Mansour.